déedéet waaye moo gën a xumb candidat ya waaw le quotidien yéene kaay ne wàllum stratégie ak wàllum saboté élection présidentielle day waaw ma ne la Abdoulaye Wade day tànk wi nga xam ne kon moom la taxawoon day xoolaat na ko de xoolaat na ko de ndaxte léegi ne daal di ne ne seen carte électeur day bu ko taal déedéet waaye taal leen procès verbaux yi wax ni la de vote xam nga Abdoulaye Wade daal fépp la wax nañ leen daal nag bureau nag sa du gauche eh. parce que Abdoulaye Wade nee na dama ne ñun duñu bokk ci élection présidentielle yi laa la wax jàppale wuñu kenn uh-huh, uh-huh. Abdoulaye Wade ne waaw góor gi national yemu ca ndaxte nee na léegi daal dogal bi nga xam ne kon jël nañ ko day mooy song leen bureau de laa la wax ar di taali ngir wàllum élection kon du am ci mim réew jël leen fichier électoral bi génnee leen ko ba ca mbedd ma jël leen essence daal leen ko la ilaha illallah la dama ne daal leen ko day waaw dama ne la ils seront obligés neex na xari daal di organiser waat élection yi ci yeneen i condition laa la wax enquête yéene kaay ne Abdoulaye Wade de fa mu nekkoon dugg fa ba léegi ni lay déedéet réew mi quotidien ak les écoles yéene kaay ne dama ne la Abdoulaye Wade nekkoon waaw daal di fipp rek rébellion fa ba léegi ni maanaam gedd élection yi saboté kon élection yi laa la wax tribune yéene kaay ne demoon ni Abdoulaye laata comité directeur de déedéet vox populi ne Wade daal boo bëggee dégg tub réewa parce que Abdoulaye Wade nee na jël verbal bi sotti leen ci essence taal leen ko waaye bu leen taal kër yi de déedéet te bu leen taal tam seeni carte d'identité waaye taal leen Dakar Times de Macky Sall jàll premier tour am ba waaw la ca Abdoulaye Wade wax cinquante cinq pour cent soixante pour cent Abdoulaye Wade mi lay xanaa cabinet américain bi gis lu mu wax ci premier tour élection présidentielle bi lé ak Macky waaye am na ci ay analyste politique yoo xam ne day la ñu gis ci nii ak ci nee élection yi deuxième tour day am waaw waaw te deuxième tour boobee président Macky la ak président Idrissa Seck loolay dëgg vingt quatre heures na ca Tambacounda ge commissaire u ba day dinañ koy dàq de mardi tali waaw parce que professeur Issa Sall day commissaire ba la tuumaal ay laay u Tamba parce que gis nga bu nekkul woon bi nga xam ni kon moom la suñuy kaaraange yor waaw kon ba léegi heure bi ray nañ ñu mardi tali la ilaha illallah ni waaw professeur Issa ci source a léegi nag su avocat yi li des ci liggéey bi lé danañu ko def ngir ñu xam ne ngeen ba ndànk la ñuy taxawee ci ñàkkum kilifteef gi nga xam ne ñu yor suñu wàllu kaaraange moom la ñu taxawee te taxawuñ ko muy ministre de l'intérieur bi la Aly Ngouille Ndiaye ak président de la république sortant ba ci commissaire u la wax Ousmane Sonko waaw ne xam nga réew dañu ko yore ci mbirum wuyu banditisme d'état parce que Macky Sall ak Aly Ngouille ñoo santaane ngir suñu convoi bi ne bu mu jàll lii Bamba Ndiaye ancien député ci tribune yéene kaay nee na gis nga Aly Ngouille Ndiaye ba ko ba bile am mu naan waw léegi ah sécurité yëpp ah nañu dem ci candidat yëpp ñeng ñeng patiti patata té lolé sax bu len ko gëm dé tok len ba gis tak dér yi dem ci yeneen candidat yi ngeen di doog a sénat ba ngi ni ak ay membre am violé loi bi ñu japp len loxo ci poos te nguy ñay Ndiaye day ak wa kër Macky Sall yoyé waw préparé ay résultat lañ bëgg def de Idrissa Seck dé ci sur sa waw néna gis nga réew mi lé ah fonction kese mo fi dox moy bour moy bu mi di président de la république kese maître Madické kenya day waw néna man xam nga lan lay laaj ba xam Mohamed Boun Abdallah man day fii la dekk parce que dëkkam bi nga xamni fi la juddo buñ jonnu defu fi dara ba dara bolo jeex la la wax buñ jonnu mi la day yeyoowul sax ñu koy jox yenn ndomb tànkay kawee ci gouvernement bi man maître Madické Niang maa ko wax ma mbay ñaa waaw ci source a ak les ko yene kay ne yow xam nga am opposant bo xamni yow sa bir bureau do vote waaw mëno fa am ñaar ak ñetti carte yow koku koku tam Ousmane Sonko ak Issa Sall mi la xamuñu dara ci mbirum état maître Madické ñaa mer ñem la té sénégalais yi wóolootuñu Idrissa sek mbàkke mbàkke nek ta géejawaay ci tribune yéene kaay dañuy ndey wóolu nañu Idrissa sek la la wax euh, waaw parce que ñu ne Idrissa Seck la ñuy voté le 24 muy Serigne Kosso Mbacké Serigne Khadim Mbacké Serigne Assane Fall Serigne Aïdara Mbacké Sodo Mbacké ancien député nee nañu ñun de li bëgg daal waaw mooy Idrissa Seck mi la jël réew mi gañe président Macky Sall laa la wax ñun Mbacké Mbacké Guédiawaye yemu ca de déedéet parce que bëgg tamit mooy Aliou Sall mi ñu jox ko paas mu ñibbi ñu jël doomu Guédiawaye biir daal di koy teg ci biir maire bi loolay dëgg daal di gagné élection yi lu leer laa la wax libération yi nekkaa ne waa lii moom doy na waar di maître Abdoulaye Wade day waaw nekkete xaalis la bëggoon a jël laa wax nii ci Cheikh Amar baar taali laaj la ca samp de ak pré wu juróomi milliards yi nga xam ne loolee amul Abdoulaye Wade day waaw tribunal correctionnel ba day ginnaaw ba mu porté plainte nag ngir teg pression ci kaw Cheikh Amar waaw tribunal bi joxul dëgg day bàyyu Karim Wade laay Wade dafaa daanu Cheikh Amar lànk ndaari tëdd bu dee sax ko tiital laa la wax yooyu Samba Abdoulaye Wade yamu ca dem na bay harcelé maître Patricia Léeg Diop ak maître Moussa Mbacké yéeni kaa gi ne Abdoulaye Wade kay waaw bal day la mujj dóor boppam nag ci bopp maar di taali <laughs> alaaji gémmeñ daal bu waxulee dëgg wax safaan Karim Wade nag ku war a góorgóorlu la te bu mu fàtte na nag mooy taaw baayam bu góor xaayar na ku dégg séeréer boo ma ne la la di tëjal